7 jot na ba tegal fanweeri simili ak ñett ñu tënk xibaaru jaww ji xam ngeen ne itam température yi euh, mi ngi tàmbali di wàcc ndànk-ndànk ndax ñu ngi ci njeexinteelu décembre jëm janvier heure bi daan na fekk nag ñuy liw bay jaaru mais bon euh, am na quand ay boor yu xaw a sedd ci biir réew mi fu ci mel ne Sédhiou ndox euh, ak Kolda Kolda sax moom xam ngeen ne 13 degré la xëyee Sédhiou boobu ma nga ca la max yi ñu ngi ko am ci biir Saloum muy 23 degré su ko weesoo. Euh, température yemamaay la ñu gis ci carte bi euh, ci euh, fi nga xam ne moom mooy pàcc bu njëkk bi ñu xool ci ñaareelu pàcc bi maanaam ngoon gi jant baa ngi génn maatam moom jant bi génn na bu baax a baax fële ci diwaan Ndar ñi nga fa seen ay niir naka noonu ci Thiès ak ki Ndakaaru Ndakaaru googu sax moom moo am la mini température bi gën a ndaw ak muy 29 degré su ko weesoo température yi dem na ba 41 ci après midi bi euh, Kédougou moo ko am euh, leneen ci biir carte bi gis ngeen 41 euh, également ca diwaanu Ndoukoumane Thiès mu ngi ci 37 Saint-Louis 35 pardon Diourbel moom mi ngi ci 39 degré ñu xool aywa rapidement lu jëm ci wàllum marée yi ngir suñu mbokku nappkat yi ñaari marée bu njëkk bi ñu ngi koy xaar marée haute bu njëkk bi ñu ngi koy xaar booru yoor yoor bi ci topp guddi 22h marée basse bu njëkk bi bi suuf sedd seddee la woon bi ci topp ñu ngi koy xaar itam euh, boori Tisbaar bu ko weesoo quinze heures et quelques jant bi waxtu wi ñuy waxee euh, mi ngi fenk ndànk-ndànk buy soo nag ñu koy xaar bu 18 jotee yemook euh, ñeent fukki simili ak juróom-ñaar waxtu woowee sax daanaka la ñuy julli timis jamono ji ñu dem xool li xew ci de quoi est le nom ak Abdoulaye